مصر لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu dañ leen di wax wa wasalaamaaleykum euh, dellu nag di wax alhamdulilahi rabil alamina ndax ci kattanu yàlla bu ñu dooree album ramadan début koor gi macha allah fas yéene ko jeexal tey mbokk yi du def rek dul sant yàlla waaye julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di kontaan wax dëgg yàlla ci képp ku nga xamante ne bi yaa ngi ñu doon seetaan di kontaan ci képp ku nga xamante ne bi yaa ngi àndoon ak ñun ci liggéey bi macha allah di nuyu bu baax a baax euh, suñu góor euh, prince mhm. amoon contentement bu mag nag euh, mhm. fegook yow macha allah ci mhm. émission bi dafa mel ni sax ni ñuy tàggoo téléspectateurs yi mooy couleur yi ñu sol lu niroo. Mm, télépathie. waaw kon nag yàlla na jàmm yàgg. <laughs> maa ngi lay nuyu Prince di la dalal jàmm bu baax a baax. maa ngi lay fay olof yi dañuy wax ni lépp lu nuyoo tàggoo. donc euh, séntu rek moo mm. metti tout à fait. mais ñaan yàlla rek bu mu doon suñu mujjëbteelu koor yàlla nangul ñu te euh, rafetlu également bu baax a baax ànd bi ma àndoon ak yéen macha allah album bi tourné nañ ko tourné waat ko mm-hmm. ci tourne tourner façon bout digeste boo xamee ni ku ci comprendre ci album bi. tout à fait donc maa ngi nuyu ñi fi que mhm. di wax vraiment. nous, nous euh, suñu xarit euh, euh, Prince Machallah, nous fatali nak nek mom mo Dakar FM parce que RTS groupe la sorti ci la ak def ci di la gërëm di la sant waye di yegg ca wet wet di nuyu rek suñu xarit Rougui parce que dañu ne la santé.

incha allah ñu ngi mhm. lay nuyu bu baax yaa xam mhm. di am mbégte saa su nekk di toog ak yow ndax nee naa ne yéen uh, ay icône ngeen ay exemple ngeen mhm. prince uh, waxi noppi nekk ngeen ñoo xamante ne honneur lay doon pour ñun topp ci seen ginnaaw topp ci seen i tànk rek fu ngeen ñu awale rek ñu aw fa incha allah di leen wax ne rek uh, mbégte la ñuy am aussi mel ni benn relais uh-huh. entre les médecins uh-huh. et la population di dem di taataan di leen indil ay information yoo xamante ne dina tax sen wér-gu-yaram gëna jaar yoon waye dinañ tax tamit ñu bayyi xel ne euh, la prévention aussi mhm. c'est important il faut prévenir euh, mieux vaut prévenir que guérir loolu la mhm. euh, tubaab di wax mhm. ñu bayyi ci xel bu baaxa baax ci kanam dinañ ñëw ci santé indi indi indiwaatal leen beneen loo xamante ne dina

Euh, particulier c'est-à-dire à l'antenne boo ko gisee bu de uh-huh. rek daf lay décompressé absolument da lay déstressé uh-huh. ensuite maintenant mu jox la li tout à fait et le loolu uh-huh. pédagogie la. tout à fait et c'est important. tout à fait ñu ngi lay nuyu Aïcha. <laughs> gis nga muy je mon corps il court. <laughs> mon cœur est frigidaire. de raison. Euh, émission bi neex na trop. Mhm. mais maa ngi nuyu téléspectateur RTS 2 émission bi am na retour yu bëree bëri bëri bëri et ça ça prouve que suñu équipe bi macha allah. Mhm. maa ngi leen nuyu Prince. Mhm. Euh, yaa xam moom el professeur. <laughs> maa ngi leen nuyu aussi Maïmouna c'était un plaisir. Rougui idem suñu invité bi. et euh, Info Intox moom dafa nekkoon et puis et puis même j'ai même pas posé toutes les questions même. non dafa gaaw en fait. Ouais, trop. du amat beneen ah l'année prochaine nañu ñaan et donc euh, c'est le dernier numéro. Mm-hmm. j'ai été très contente en tout cas info intox on a beaucoup appris. Mm-hmm. man la première. et bon comme Yaham xam disait, disa Rougui ñu ngi joxe dig y a une émission sur la RTS 2. Mm-hmm. ñu de lay di la sant bu baax a baax yi dañuy madame gaye maïmounassi parce que je pense que euh, elle et moi amna euh, ben rapport de travail mhm. euh, ci wàllu culture bu extraordinaire bu nga qu'on développe depuis assez longtemps mhm. et à chaque fois damay content di faire moom parce que nit ki buy wàcc di la indil li nga xamné daf lay bégal parce que bon elle sait xamna xamna mhm. donc de donc content chaque fois di feggook moom machallah allah ngeen def liguey bu rafet aussi bien si portrait yi euh, que ci yeneen euh, sujet yi nga xam yenen ko don développé mais c'est toujours un plaisir te comme yéen ñep je dis à tout le monde, congratulations. Merci. Thank you, uh, mhm. sister. Mhm. Uh, tout le plaisir est pour moi. Mhm. Uh, mbégte boobu que dama koy jël c'est de l'éco waat uh, équipe yi nga xamantene ñom la doon andal dembu ak damay mhm. sargalat nga parce que mhm. c'est un travail de chaîne absolument euh, ñun dañuy def euh, bi def preneur de son bi def bu accès ñu togg bi au niveau du montage réalisation am produit fini pour xamne mhm. téléspectateurs yi lañ koy euh, ñu bu a baax di di dem di di indi di jox ñu am yaakaar ne na len tay nak xamna rek euh, boucler comme on dit en beauté ak mm. sujet bi nga xamantene mom lañu andé alors euh, Prince euh, dañuy contane nag wax deug yalla ci képp ku nga xamantene bi jaar nga fi comme invité. Mm-hmm. parce que dañuy bayyi sen temps. Mm-hmm. indil ñu seen xam-xam. Mm-hmm ak pédagogie ba ca war ñun ñu ñu jël ko wat ko ñi nga xamante bi ñoo ñuy seetaan ñu ci kontaan bu baax a baax te comme nak euh, walu walu wi manam euh, ndey jor bi à chaque fois dañ la koy bayé presque ñu bàyyi la nga présenter ki nga xamante bi tay sunu papa la euh, yàgg na RTS dafa def liggéey ju raf bu rafet ma bàyyi la nga présenter imam xam nga euh euh da nga wax légui invité yi mais dafa am timit yu ci gëna am solo yëpp am solo mais les portraits également. absolument euh, nit yi nga xam ne dañuy nangu ñu defal leen ay interview ñu wax seen xam-xam. Mhm. partagé mhm. loolu dafa am solo. Mhm. gis nga tey dañu am euh, invité bu yaru. ku am xam-xam. allah poète la kii. et que nit la boo xamee nii. du la jox diine bi. ci façon boo xam ni daf lay ragalloo. toujours daf lay gëmloo ni. ci li nga nekk amna lo ci meuna a am ëllëg. mais soko doxale ni ci lay gën tar taaru. macha allah d'ailleurs mom bokay xol sax. Mhm. da ngay gis ni. lolu moy fees ci kanamam. tar uh-huh. éloquence. Mhm. élégance mhm. ak connaissance. alors alors Prince dans la dans la continuité nga balma euh, sans qu'on a beaucoup parlé. Euh, hier plutôt on a beaucoup parlé des des mamans. Mhm. alors c'est l'occasion pour nous aussi De sargal suñu papa papas mhm. parce qu'on les affectionne particulièrement mhm. Il ak papam y a un rapport extraordinaire alors moi quand je vois des vieux comme ça bah, j'ai chaud au cœur et ça me fait penser à mon papa et voilà je vous aime énormément Et Moussa ñu lay ci album Ramadan euh, Prince ñu ngi kàddu yi nga xam ni moo jiitu yëpp di feeñal tamit sunu mbégte ci toog bi ñu toog tey ci seen biir wuyu si woote bu am bi maana te am bi solo kàddu yi fa tabarakallahu rafet na mm-hmm. e sori na it wax dëgg yàlla mm-hmm. ci xol ndax fi mu bawoo ci yéen mm-hmm. kàddu yi fa lay dal ci sunu foofa lépp rek ñu delloo ko buur bi sante ko ko subhanahu wa taala tey ñaan mu nangu te barkeel di nuyu ñëpp nag ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax euh, macha allah prince dañuy kontaan euh, à chaque fois ci euh, sunu mag yi nekk mhm. Sénégal mhm. parce que dañuy won à chaque fois yoon bi mhm. tekk bi teey bi xam-xam bi ak yar bi yalla, na leen yalla defal gudd fan ak wer ñu bokk ko ñep ñi nga xamantene bi ñu ngi seetaan mbokk yi euh, tay nak euh, annoncé won nañ leen ko démb euh, dañu dem nak tëjee émission bi ak suñu kilifa muy le directeur général de la RTS monsieur Racine Tala, bokk momi tamit ñi nga xamantene bi ils nous ont fait l'honneur nek ci album Ramadan mm-hmm. suñu xarit Maymuna euh, Massayer euh, Thiaw ak kan nga andalon encore. Euh, Mamadou Ndiaye donc demoon nañu ci fële centenaire ci bureau sous directeur général momi tamit mu bok ci album bi ñu dem déglu monsieur Racine Talla Ramadan Mubarak jërëjëf nuyu yow ak euh, nuyu RTS 2 ak ñu fay yëngu di de façon générale di aussi initiative yi ngeen jël ci bi parce que maa ngi album Ramadan mu innovation bu bu am solo te sax reportage bi ñu def ko dans le vingt heures kon nag émission bu siiw la kon nag ma am mbégte manit euh, vraiment ngeen tànn ma ci ñoo xam ni war nañu bokk ci album boobu euh, man nag euh, Racine Talla laa tudd juddoo Saint-Louis juddoo Saint-Louis am chance def région yu bari parce que man euh, comme mon pape fonctionnaire là presque chaque deux ans je ko donne affecté petit force de police l'école. l'école. suis Saint-Louis euh, dougué école Ziguinchor école boucot ouest euh, continuer école bi Dakar Jouer Dakar aussi toujours type primaire bi continuer ko Rosso Sénégal jouer Rosso Sénégal dem Tambacounda a faire entrer en sixième jouer fa Deloua Dakar euh, après cela nak bi ñu Dakar euh, ma eu l'occasion pour la première fois dem vacances Fouta fa lañ cosaanoo alors comme dama xawoon tëradi tuuti eh, ñu ne ma nag yow eh, fii ngay des eh, fekk maa ngi doon def déjà première secondaire hein, sixième secondaire ñu ne ma sa cinquième doo ko def doo ko def Dakar parce que tu étais trop terrible cinéma plage et cetera surtout que ñun banlieue lañ dëkkoon Pikin à l'époque Pikine Icotaf cité 3 duma ko fàtte mukk parce que jàng naa école 4 j'ai eu l'honneur aussi beaucoup ak euh, Mohamed John classe euh, vraiment xawoon naa nekk un très bon élève quand même macha mais dama xawoon terrible un peu alors sama papa ne ma fii ngay des fii Matam ngay continuer sa cinquième Yalla def ma continuer fa cinquième ba troisième am brevet mais on fa jógee Euh, aussi di am vraiment mën jàng macha allah et puis dem lycée Charles de Gaulle fekk fekk ñu affecté waat fa sama papa encore donc foofu laa nekk ba am bac avant may am bac moom fekk jóge na fa dem retraite mais mu bàyyi ma ak euh, benn xaritam basiru Dieng ndeysaan kooku foofu laa terminer sama bac année boobu këram Euh, mu def dans d'excellentes conditions lu rare ba léegi moom dañu am ay relations presque euh, jarbaat ak nijaay moom sama papa c'était son supérieur hiérarchique euh, et tout vraiment mais ñu am ay relations yu rafet kooku duma ko fàtte jamais jamais jamais dans la vie foofu la defee bac am mention fekk sama parents yi ñu ngi Dakar nag euh, alors dem ma dem université nekkuma ak sama parents yi quasiment parce que après dama am nekk euh, université nekk fa def philo ba maîtrise année maîtrise boobu ci laa def CESTI yàlla def ma am nekk nag premier ci concours CESTI bi euh, mooy entrée spéciale mooy ñi am niveau licence ak maîtrise ñoo koy def ma dugg CESTI ñun nag deux ans lañ doon def deuxième année troisième année dem Canada alors bi ma Canada, Canada vous euh, science de la communication la fa vraiment au niveau master après ñibbisi mais même même vous fa déjà radio centre-ville euh, c'est une radio grande radio communautaire euh, ensuite il faut aussi radio Canada mais faut concours le one parce que mon âge, quoi, comme séjour, euh, parce que j'étais légalement, j'avais le droit de travailler. Donc, Radio-Canada, ça veut dire c'est la radio et la télé. Ça s'appelle Société de Radio-Canada. mu nekk nak euh, ay jaar-jaar yoo xam ne daf lay jàngal lu bari bari ci àddina jàngal la maandu jàngal la teey nga xam ne lu bari day gis nga ko ci àddina daal waaw euh, prince gis nga nak ñi ngi àndoon ak suñu mhm. directeur général monsieur Racine mhm. Talla mhm. donc euh, ma gis nak nek c'est quelqu'un qui a quand même fait le tour du Sénégal c'est-à-dire euh, voilà gox yu bëri jot na fa jaar de par justement fonction yi nga xamantene ne bi wajuram bu góor daf ko doon occupé prince xam nga jaar-jaaram fay wane ni mu nekk ak ñun ci biir kër gi c'est quelqu'un de très ouvert il est open et que générosité boo xamee ni Mangi ngi comprendre pourquoi il dégénère mhm. parce que dafa dafa xoslu mhm. xam na lan mooy ñàkk xam na lan mooy am mhm. donc bu ngeen nee tag daje rek xelam day am ci lu mu daw donc gis nga loolu euh, tey laa doog a comprendre pourquoi mu mel noonu donc euh, vraiment euh, May lii scoop la déjà pour ñu tëjee ko li nga xam ne mooy les trente jours de de l'album Ramadan. Alors, Maïman, que l'on Dimbe, en fait, on a eu une exclusivité avec le mhm. directeur général de la RTS. Parce que je pense que nous, que nous avons dit que nous avons dit que dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous compléter parce que que mhm. lu nga que ne avons na ci avons dit lu nga ne tamit dañ que mhm. nous te loolu dama bëgg nga ñëwaat waaw li nga wax loolu la euh, gis nga émission bi looloo tax mu neex. Uh-huh. parce que album bi boo ubbee page. Uh-huh. gis ki nga xam ne moo nekk ci biir portrait bi. da ngay jàng lu bëri. da ngay gis beneen nit bu uh-huh. wutee ak yow bi nga xam ne moom ngay gis. ci bi. Mm-hmm. te yaakaar naa ne nit kooku ngay dem dajal. booy def portrait bi. kooku mooy nit ku dëggu ki. kooku mm-hmm. mooy nit dëggantaan tout à fait ci loolu damay euh, fekk si Prince rek ci li mu wax sànq ci euh, générosité am. Mm-hmm. ak tamit ci ay valeurs yoo xamante ne man neex na ma te yëg naa ko ba ma mhm. toogee di def ak moom mhm. interview. mais nga baal ma de. waaw mais neen dafa xawoon terrible. waaw tëre bu loon na tëre bu loon na lool nee na ma damaa xawoon tëre di lool moo tax am na épisode yoo xamante ne moom xam naa dañ koy dañ koy dañ koy bàyyi rek uh-huh. Uh-huh. alors euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure uh-huh. euh, Prince li mu wax léegi euh, dama ciy dolli rek fidélité dama ciy dolli tamit li nga xamante ne loyauté dolli ci tamit li nga xam ne reconnaissance parce que bu ñu déggee bu baax li mu wax képp koo xam ne na ak yow ci jaar jaaram ba muy jàng ci jaar jaaram ba muy nekk université ci jaar jaaram lañ ko dénkoon fa ba mu nekkee Saint-Louis. waaw loolu ku amul kóllëre mhm. wala kuy fateliko du ko def kóllëre kóllëre dinañ ci ñew ak euh, euh, imam ak mhm. lan la ci l'islam wax waye ci parcours am waaw alors ci parcoursam liñ ci ñu rek moy que ne déjà tout le monde sait que ne il a été un brillant élève mhm. brillant étudiant major de sa promo ba muy dugg CESTI nekk philosophe euh, parce que département philosophie lañ ko orienté won ba mu nekkee université Cheikh Anta Diop mu jógee fofu daal di dem Canada séjourné fa après bu mu jógee Canada Canada ñibbi si Sénégal mhm. euh, mu dajé ak euh, Abdou Latif Koulibaly bi nga xamné magam la ci métier bi eneewam mom tamit mu amone chance dem Canada mhm. ba mu ko gisee laaj ko nek wa yow ñëw nga loy mhm. def uh-huh. ah man da ñëw na mais ma ngi ni xam nga l'appel du pays comme on dit uh-huh. mu ne ko wa ñëwal groupe sud mu ngi fi dé. tu vois encore cette générosité mu ñëw uh-huh. dal di dugg groupe sud liggé fa touti à l'époque c'était euh, sud quotidien hebdomadaire d'abord avant muy nekk quotidien mu joggé fofu après dem fi nga xamante moy système des Nations Unies d'accord ñu recruter ko fa mu comme euh, chargé de communication au niveau de Unicom. Mhm. Euh, après euh, appel d'offre dañ ko mu candidaté ñu nous mhm. ci ñu nous déposé mhm. directeur général 7FM du groupe 7com. prince fait centre ville. alors de manière ramassée c'est ça il y a aussi son passage au niveau de l'EPS. Éducation pour la santé, qui est mhm. devenu euh, présentement le service national pour l'éducation et l'information, mhm. euh, qui dépend du ministère de la Santé. Mhm. Euh, après l'Olonac, des lois de punit tëradi bi mooy feeñaat foofu rek ah, ah. ah, ah. dem beeg dellu si bi mais loolu lépp day wane rek euh, ne nit que la koo xamante ne mhm. euh, suy liggéey da ciy dem ak euh, rigueur da ciy dem ba mu jeex da mhm. dem ak passion mhm. mu dem après mu démissionné fa Bon, mu fa jógee nag am épisode bo hamne mon moo ko lëkkale ak son excellence le président de la république Macky Sall Moi, période bi nga xamante ne mu ngi EPS e am mission bo hamne ne da ko waroon dem xam si kanam sax xëy na dina ci gën a gën a gën ba mu jógee ci loolu ñu daal créer tamit ak xaritam bo xamné dañ ko doon wax Jean-Pierre euh, Bloch mhm. euh, li ñu nane Mediatech c'était une grande agence de communication bu nekkoon fi ci Dakar mhm. euh, ñu liggéey ci nak liggéey bu am solo à l'époque je pense l'actuel président était premier ministre mhm. si je ne me trompe pas donc ci teunk dal loolu lañ ci wax parce que li duuf ci nak li yëpp du xacc ci ah. alors man j'ai une question est-ce que amul un petit passage à la RTS

dafa ko mhm. dafa ko bëgg mhm. euh, muy euh, muy kóllëre mu nekk lu am solo lu nga xamante ne bi c'est des valeurs à faire revenir mhm. su nekkee daf ñu xaw a réer tuuti jërëjëf euh, Adja baat boobu nga tudd laaj ko te mooy kóllëre ci diggante ak sunu kilifa gu baax gi di Xaaji ku sàmm kóllëre la te itamit euh, ku ko xam te di ko rafetal fu mu toll la mm, waxuñu ko nii rekk pour bëgg am fu ñu dugal sunu wax waaye dañu ko dund ak moom mm-hmm. ndax ñu ngi bëgg a yàgg ca kër ga te at mu jot mu am nu mu jëflanteek ñun mm-hmm. rafetal ko ci anam goo xam ne sàmm kóllëre tax kóllëre nag di baat boo xam ne noonu mu gàttee noonu la amee solo ci sunu boroom surtout sàmm kóllëre wax na ni bokk na ci li ñuy jëkkalaat jaam bi buñ ko dugalee ci bàmmeelam kóllëre lañ koy jëkkalaaj nu mu defoon ak moom kóllëre nekk baat boo xam ni mag ñi sunu mag ñu baax ñi dañu ragal di dindi kóllëre dañ ko ragal ragal ba baatu baatu fase naa la ci diggante nit ak soxnaam yàlla mu muy jib ndax li yonent bi wax ni alayhi salaatu wasalaam abgadul xalaali inda allahi attalaaq nee gën a bañ ci yu dagan yi dégg waxin bi li yàlla gën a bañ ci yu dagan yi mooy fase moom la yàlla gën a bañ ci yu dagan yi moy fase sunu mam bi ci tiaw mam haji malik si radiyallahu anhu ne ah kon de baxul dagan na waaye kon de baxul ndax ku and ak say morom ñepp bax ñu bëgg ñëpp bëgguñu la kon baxo kon fase baxul motax mag ñi ragana tudd deug deug baat bi motax ñu jox ko baatu fase mais xam nga fase deug deug moy lan moy feccee na la kóllëre ah. wala yaasu dafa feccee naa la kóllëre feccee mm. naa oh la kóllëre kóllëre ga ñu fasante woon mm-hmm. dencal yàlla sunu bopp ci néegu sëy mm-hmm. fañ ko fase woon mm-hmm. fecce naa kóllëre googu loolu nag dafa rëy ba noppi diis moo tax ñu woyee fa la ko baatu fase naa la rek ñu dégg ci ni kon moom du koy fecci kóllëre ci digganteem ak kumu dégg nañ ko fa tabarakallahu ci ay jaar-jaaram yépp daañu ñëw xet na ci kanam ndax dund na baat boo xam ni euh, madame Guèye indi na ko léegi muy baatu tëradi ñu insisté ci <laughs> te dundu doomu aadama dëgg la loolu ah. dundu doomu aadama moo mu ngoog moo laaj loolu ndax mhm. élément yi yàlla boole bind ci nit mhm. mooy laaj yooyu ci nit al anasirul arbaa quatre éléments la yàlla boole bind ci nit nit suuf la ndox ngelaw ak safara ñeenti éléments yi la yàlla boole bind ci nit boo gisee buy taw taw bu metti ànd ak ngelaw daaneel garab daaneel taax nit jaar ca doxi soxlaam mënuluñ ko dara nit ñoom la moo tax ñoom la luñ ko dara. Euh, euh, imam mhm. euh, ma si am ñangat rek nek la sagesse s'acquiert avec l'âge mm. parce que xeyna li xalé di def mak du ko def te xalé xeyna ñak xam mm-hmm. moo tax muy comporté woon noonu dinañ mm-hmm. dellusiwaat ak yow dans quelques instants mm-hmm. alors Rogi et Aïcha gis ngeen ne que nit ak fu mu mën a toog ci àddina ak nu mu mën a mel ak daraja bu mu mën a am dafay nekk xale des nekk adolescents, des nek après mag après des nekk màgget donc loolu de dafa am ay comportement yu nga bi c'est tout simplement naturel euh, loolu mom dafa am solo mm-hmm. te euh, imam ñëw na ci léegi mm-hmm. daf may fàttali rek benn poème bu ñu daan wax ba ñu nekkee xale mooy damay yarute duma tooy ndax tey yar baax na gis naa yar ci moom gis naa dal ci moom gis naa sérénité ci moom waaye nag tëradi boobu ñuy tudd xëy na mooy damay yaru te duma tooy ndax boo tooyee am na foo xam ne doo fa mën a egg ci wàllum euh, euh, tàggat sa xel ndax ku tooy moom dafay naan teg rek toog fa mu toog boo ko jàngalee du dugg boo ko liggéey loowee du mokk soo ko yónnee du dem wala bu démé ñu nax ko wala lu mu dugg dinañ ko nax wala mu am nu mu démé ba nga xamantene fam bëgg a du fa egg kon nag bàkkub ndongo boobu ñu daan ñu daan ñu ñu daan jangal ba ñu nekké primaire dama ah, yarute duma toy mu ngi noonu yëngute duma ko mu tay ci duma yéex ah. njaxlafte lafté duma rambax am fayda ci bari téggi ah. wégg wajur déggal leen nongo day am gëtt waaye légui lool damay dañ ci tout simplement mooy euh, euh, suñu téré bi machallah alcorane karim dafa sopp dafa équilibre mm-hmm. lu yem même euh, imaam sax dañ koy tànn parce que day nekk digg bu nit donc lépp dafa war a am mesure imam dëgg la euh, ma ñëw tuuti ci yarute duma tooy xam nga ku ko ku ko ku ko xalaat nosa ko bind ko professeur Sakhir Thiam mm-hmm. macha allah jàngalekat la yarekat la mm-hmm. ndax dafa am sunu maam bu ñu wax maam Babacar Si fii ci Tiwaawan moo daan wax ni ba tey wala fii nit ñi xàmmeeguñu rey ak reen di bokkul xàmmeeguñu aji màkk ak dem màkk bokkul xàmmeeguñu am fayda ak rëy bokkul xàmmeeguñu yaru ak la budd bokkul xam nga baatu rey ci loxo yàlla rek la nekk mm-hmm. nit mi yàlla jox sañ-sañ boobu nag wala moo jariñoo xaram wala mm-hmm. ganaaram mm-hmm. daf koy rendi ah. bu ñu ko rayee rek kenn du ko lekk day xaraama lekk waaye bu ñu ko rendee ci turu yàlla ci nga koy mën a lekk yaa ngi koy gën dégg ci euh, maam sunu ibrahima alayhi ba ko yàlla rendiloo Ismaïla waxu ko rey ko de daf ko ne rendi ko ndax rey ci loxo yàlla la nekk boo gisee bi ko maam Ibrahima tëree ba dawal paak bi ci baatam daggul mu mhm. mhm. ngi rendi mhm. waaye rey nga ca loxo yàlla rey ñemewul dem ndax amul ndigalu dem looloo tax waaye bu ko ne woon rey ko ba watul kon du sotti waaye daf ko ne rendi ko ba noppi nag téye rey rey ñemewul dem te yàlla joxu ko ndigal moo tax luy matti bàyyi xel la reyal ma sama ganaar ga rayal ma sama xar mi ëpp naa wax mm. danga naan rendil ma <coughs> kay rendi naka rendi ci turu yàlla mm-hmm. nga mën koo lekk mm-hmm. Mm-hmm. aji màkk ak dem màkk mm-hmm. bokkul bari na ku ne aji naa dem ba ñëw mm-hmm. fekk dafa demoon màkk rek ba ñëw comme touriste rek mm-hmm. wala yaasu billah ndax la yàlla yi bañ ci aj yëpp def na ko fa ba wattul fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil hajj ku nar a yàlla nee na wattul ma yii ku ci mucc mu nangul la sa aj ku ci muccul doo am aj lépp lu xeetoo ci wàllu fo da nga koy wattu lépp lu xeetoo ci lu jëm ci caay-caay da nga koy wattu weranteeg ñaxtoo ki xuloo yu sewit da koy wattu bu ko defee nga aji màkk waaye demoo màkk yam ca am fayda ak rëy bokkul am na koo xam ne dégg dafa rëy rek waaye du fayda xam nga fayda baatu arab la mooy faida mooy njariñ nit ku am njariñ waaw mm-hmm. loo xam ne yow sa wax njariñ la mhm. sa jëf njariñ la mhm. lu amul njariñ sa yoon du ca nekk mhm. li yonent bi wax ni bokk na ca liy rafetal lislaamu ascam ba yàlla nangul ko ko mooy bàyyi lépp loo xam ne amalu ko njariñ dana tax nga am fayda jërëjëf kon nak mm-hmm. euh, euh, Aïcha mm-hmm. dañuy faral di wax mak mat na bàyyi cim réew mm-hmm. je pense que ñi ngi dégg suñu ay nopp tay euh, imam diko ko déglu bu baax parce que amna yo xamantene bi xeyna xamone nañu ni rek ci kaw waaye en profondeur xam won signification mais je pense que c'est clair aujourd'hui c'est très clair De femmes différentes yu bare ci comportement nit te tay portrait bi ma setan, j'apprends beaucoup de choses mais ben affaire la la jàng tay c'est que pour gérer des hommes, mhm. il faut être un leader. absolument Donc, je crois que les femmes sont les plus c'est mhm. comme la télé c'est comme être un médecin c'est comme mhm. être avocat mhm. Nous n'y sommes pas comme et et j'ai appris une chose euh, euh, la somme d'expérience fait que tey monsieur Racine Tala, qui est le directeur général de la RTS euh, peut gérer autant de personnes et et ensuite régler autant de problèmes et et ça c'est pas donné à tout le monde alors tout simplement Prince dañuy de xuus c'est émission mais pour wax dire, quel est le koy def nit défini du est le ne man damay défini kilifa kon nag nu ñu jël yàlla suñu borom bàyyee lépp moo ñu bind sàkk ñu te moo ñuy jox kon nag mbokk yi nu xuus euh, ci album Ramadan RTS 2 le dernier numéro euh, ñu dem dellu si waat لقاء قرب ربي يفترن صافي رمضان مبارك moom dafay bouleverser sa ça emploi tant ce calendrier parce que déjà man damay xëdd le fait may xëdd damay xëdd vraiment avec beaucoup d'énervement parce que vous si si le simple Si, hein, le simple croissant café au lait c'est terminé après ma naan un jus naan ndox c'est tout très simple loolu laay xëddee mais xam nga da koy def ça c'est pour la santé aussi hein comme aussi euh, bon euh, lolu lañu recommandé lolu lay def et puis profiter ci julli bon lo xamné avant c'était rare nga jog heure yoy di julli et tout mais vraiment dama koy def ak empressement pour tëddaat ci la pour dire la vérité donc euh, man non lay xedé et puis euh, après ça ñeu liggéey euh, mais liggéey bi vraiment da ngay sentir ni euh, efficace franchement man parce que ragaluma xiif en vérité hein, parce que ben repas moi dans la journée ça me suffit et comme je suis bu baax reer xëdd bu baax je euh, ma sentir journée bi trop et comme je ne suis plus fumeur donc vraiment la main dans ma dalle. Euh, comme dama nek aussi nit ko xamné awma yaram trop euh, sama yaram organisme du solliciter lol euh, lu jëm ci ay calories et tout bon parce que li may lekk li may naan bon je supporte mais à 18h, 19h, rek su joté là vraiment c'est l'empressement pour vraiment dire que il faut reprendre la vie normale quoi autant xëdd bi c'est simple autant ndogu xam nga ñun couleur. c'est pas comme yenn peut-être culture yi ñun ndogu dafa am ndogu am reer am na ñoo ni ci ndogu li la ñuy reeree Nous yoon ndogu dafa rituel bu am solo euh, après d'armes, pour moi depuis quand même presque 20 euh, ans akara avec pastel oui ça franchement et, presque c'est chez la même personne c'est une dame béninoise oui vraiment moo ñu koy elle est même devenue une amie de la famille mu ngi dëkk front de terre ak et puis euh, et mom légui sax su amé ay fêtes chrétienne def ñu koy kii daf ñu koy ñu dem fa et vraiment c'est devenu euh, une relation très forte c'est une femme d'origine béninoise mais le est sénégalaise deux front de terre so ñëwee fofu presque en face euh, Asbef non, fofu la am état euh, étalam. et puis ñu bari di fa ñëw parce que dafa elle est propre et elle le fait bien